li fi amaat lépp nag yàlla def na man nii ci sama xalaat la jóge xaw naa ci xam lu bari ndax lañ fi jëkk def président Abdoulaye boo ko fi def ma tàmbaloon fii ci buntu kër Sëriñ Tuubaa dem ba ca poste contrôle daal di jaar kër ñeeg jàll mooy assainissement bi fi njëkkee defaat bu wee bu weesoo li alaj ba def mooy jumaa ji kon lu ci ne xam naa fa mu jaar 2012 bi nga xam ne président Macky Sall ñëw na it. ku fàttaliku at moomu inondation bu metti moo fi amoon ci dëkk bi booba Sëñ Sidi Moxtaar yëkkati un milliard ngir bëgg woo taalibe bi Sëñ yi ñu defar ko far moom mu jël ci engagement ci la tàmbali assainissement ba njëkk a def ba 2019 2019 at ma fekk ñaari at yoo ko jëkk yëpp fàttali naa ba taay nee naan màggal gi de buñ ko waajalut fekk at yu néew dana dugg ci biir nawet loolu nag mooy li agsi 2019 ci lañ ci defaat li li fi ñu toll loolu nag liggéey bi dafa àggagut moo tax mu xaw a metti ci nit ñi ren ndax yàlla def bi mu fi jógee nguur gu bees gii fi ne ku xam nguur waxoon naa leen ni ren sëñ Saliou dafa wax ne nguur gu bu amaguñ ñeent fa guddi kenn du ko teg soxla ñeent fu guddee weesoo léeg-léeg sax nit ñi ne ma dañ leen yërëm bopp wala dañ leen layal man layaluma kenn xalaatuma ko sax sëñ ko ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi suñ bakkan lañ ci teg suñ pësteef lañ ci teg suñ dégg Sëñ Tuubaa ci seeral kenn lu mu defut ndax waaye boo xamee danga xam ne diirum ñeenti weer ku ci yaakaare mën naa tàggoog ndox mi mënti nekk ndax liggéey bi àggu ko ña ngi cee góor góorgóorlu nañ nag def cee jéego waaye dafa des beneen jafe-jafe bi ci am nag xëy ne comme ñoom bi ñu door agsi euh, xamaguñu woon liggéey bi ni mu demee ndax daaw ba seeb kër bi dañ faa déggoon pompe boo xam ne six mille mètres cubes la daa yóbbu ndax xam ngeen ndox mi jóge ci dëkk yëpp fa la jaar moo ndox mi dawu fa taxaw leen li dem kër kàbbu la ca des dem puuf di fi ñuy wax ngelaw itam pompe dafaa ne woon di yóbbu kër kàbbu yàlla def nag bi nawet bi duggee pompe ba ma ko toll ci deux mille huit cent kon dafa manqué lu bari bi fi ministère bi ñëwee leeral naa ko bi mu ko xamee it bi mu fi jógee wax na ne ñi ngi monté pompe pompe yi dafa noppeegut li fi noppeegut nag ndax taw bi da koo téye woon ba tax mënta jàll laa waral bu ngeen seetloo ren fu mu tawee rek mu metti ndax li ko waral mooy. bu ñu ubbee bu ñu ubbee bu ñu tëjut bu tëjut machine yi boobaa kër ñaŋ ci boppam ndox ma day sottu ko seen kaw moo tax ñoom itam dañuy bàyyi machine yi muy dem ndànk-ndànk ba këru machine yi ba noppi waaye kon nag comme ñoom dañuy door a toog moo tax nit buy door a toog doo ko mel na ku koy teg personne ndox loolu du suñ baax ndax Sëñ Tuubaa dañoo tere dañoo tere jàmbat ku def lu baax ñu sant la waaye ku defut la nga war a def itam murid yi xaaruju kenn ci dara kon nag ñoom ñi nga xam ne seen warteef la te dañuy door toog xam na xam nañ ne ren jàpp na kon liñ ci man rek mooy fexe ba génnee ndox mi ci biir kër yi jàppale ci nit ñi ndoxum naan mi it alhamdulilah fi ñu toll bu fekkee forage yi paan bari na yëgu ko xëy na benn lay doon wala ñaar ñu def ci yitte ba benn forage bañu a paan oto ndox yi itam nañ ko defe woon daaw oto sàpp pompier yëpp ñu fexe ba dolli ko bareen jaal te màggal gi jàllee rek ñu fexe ba déwén ñu def ci yitte ba ndox mi bañ a manqué at waaye comme atum ren la loolu moom da ci am loo xam ne nit yi day xam lu yoon maanaam waaye nañ ci gën a dolli yitte ndax nit ku ku ne ci biirum ndox ay bagaasam di yàqu ak dundam di yàqu kooku taxawu ko métti na am na sax ñuy wax naan. nañ jël nit ñi dugal leen ci kër Sëriñ Tuubaa yi waaye kër Sëriñ Tuubaa dafa bëriwut kër yii kër Sëriñ Tuubaa yi bu ñu fa dugaloon nit sax fi ne mënoo ko génne fii ak màggal ndax màggal gaa ci biir nawet bi ba ca des mooy ñun ñii sax gan ñi ñi am kër Sëriñ Tuubaa yi day fees ba li ñuy luyee ci ay kër dana ma fukki million kon ku amul gudd néeg yu doy ngir gan xam nga kër yi du luñ mën a ubbi xëy na nit ñi dañ ko xam li ñuy wax wala. dëkk bi dafa am nu muy doxee dëkk bi dëkku kàddu la dëkku baat la li fi indi nit ñi ak taalibi la ak taalibi lañ àndeek sëñ bi waaye du sañ-sañu lu la neex wax wala noo ko gisee nga wax ko loolu moom nañ xam ne yërmandee sëñ bi moo leen may li leen am li ñu am looloo leen ko may bu tolloo yërmandee sëñ bi kat la sëñ saa li waxoon ku koy bañ kat ci dëkk bi nga koy bañee waaye boo demee Mbàkke gii rek mu teg ci sa kaw kon. la sëñ bi daa wax rek yaar dara dara amu solo xam loo amut ak am loo xamut xam loo amut kon nag ñun li ñuy bëgg dal mooy li ci àdduna te mooy ku ñëpp ñette ñëwu sa bopp Touba dëkkub